métier bi. ah métier bi rek ci li nga xam ne mooy defar. def neneen ah, ma yemoon ci defar porte mais comme sama mbokk njaago yi bon donc ma gisee bon donc euh, moyetuñ ma jàmm bu ñu amee cercueil dañuy yóbbu par force suñu gis suma cercueil dañuy kontaan voilà bon donc. daanaan nga ci daal. waaw gis nga. est-ce que c'est pas bizarre métier bi excuse euh, le fait que nit. ñu commandé nit cercueil yi te yow nga xam ne client bi ngay defaral euh, euh, nekkatut euh, ci àddina donc comment vous naka ngay dundee loolu en tant que defarkatu cercueil. bon dina ma métti parce que là man neenu ma yàlla nit dox ba gaañu bon donc daf may métti trop parce que damay triste maanaam damay liggéey parce que ñu ne moo liggéey kii cercueil rek lay def. am parfois ma concentré wu di liggéey nit ñi ne ma Félix ñu ngi lay nuyu lu tax doo ñu fay ma ne leen non mu demee la fekk ma jàpp fekk ma concentré wu ci li may def quoi. parce da ngay defar en même temps tu es en même yaa ngi liggéey des fois sa xel delluwaat ci yàlla nga xam ne bakken bi fi jógee tey yow suba mën na doon yow. ah bien sûr man kay na ma leen di wax man suma bañu ma ko ma defaral nga xam ne nii bés bu jotee kenn xamul heure bi kenn xamul waxtu bi su jotee rek dangay ngay dem. en tout cas métier bu triste la. Euh, ñu bari ñemewuñ ko donc euh, naka ngay dundee ci koñ bi nga dëkk at at cercueil bi ngay defar des fois est-ce que xale yi duñu ragal ne fii affaire néew lañ fiy defar. fii damay romb day am ñu romb sax di ne du ma ñaaw ñemoo ma jaar ci koñ bi parce que fii keesu néew rek saa yu ñëwee fekk fi kees man na leen yàlla la mënu ma ci dara man su ma sañoon du ma ko defar mais nag comme sama métier la yàlla def ma mën ko vraiment naa ci jàppale sama mbokk yi lu ñu bëgg ku ci ñëw rek. boo ma seet see rek ma satisfaire la noo moo xat-xat dinaa la ci génne. Euh, am na xaalis vous gagnez bien na nga ci dund sa njaboot kenn du la sonal. ngi sant yàlla. maa sant yàlla waaw macha allah. alors euh, leen arrivé ngeen defar ñaata cercueil ci jour bi. ça dépend rek euh, mën nañ defar six cercueils mën nañ daaj quatre cercueils cinq cercueils par jour ça dépend. Par jour ouais. donc cercueil bi ça prend pas beaucoup de temps. jëlul temps am na ñuy jël temps parce que la am na yoo xamante su dee matériel bi nekkul sur place war nga déplacer dem machine pour passer baguette yi donc day jël temps oui. alors naka ngay def ba am dimension nit ki parce que nit yi euh, bokkuñu. am na ñi nga xam ne dañoo gàtt am ñu am pata am ñu am yaram am ñu di dimension bi nan ngay def ba am ko. non ça dépend rek parce que laa damay xool taille bii ma xool bu dee xale la naa xam lu mu koy daggal bu dee mag mos na ma arrivé un jour à Fann ba ma wàcc bi ñu ne ma non kii moo moo moo moo moo ëpp bombardier yi ma ne dugg ñu song si ma ma ree ma leen dem leen bu ñu ba ci biir ñu pare wàcce maire bi ñu daw si sëtam daw si. kott ma mu ne ma grand vraiment ndaanaan dëgg nga ma na la non bu leen jugé parce que boo gisee cercle da ngay ne dafa tuuti mais boo ci wàccee nit dañuy xam ni kii mesure am la. ci mesure bi fan ngay basé wu seulement ci carte d'identité bi wala il faut nga dem ba ci néew bi xool ko. non ba basé carte d'identité ngay sonn. parce que des fois ñu ah, ci carte d'identité yi des fois ñu dee la un mètre soixante quinze alors que nga wala. parfois day ëpp loolu sax parce que mën leen di wax un mètre soixante. boo ñëwee nga fekk un mètre quatre-vingt-dix-huit. da nga siy yokk d'habitude. yokk waaw ci yokk ko alors euh, cercueil bi naka la la dikkee pour defar ko da nga jékki saay ne da ngaa am imagination defar li nga xam ne mooy cercueil wala dañ la ko proposé wala comment ça s'est passé ba nga commencé ko def. cercueil bi ko jàng dama ko jàng parce que ba may xale maa ngi ji defar cercueil ba ma màggee maa ngi defar man ñu bëri xamuñu ma parce que là dama doon nëbbatu. loolu ci biir mu may génne ci biti dañuy gis may liggéey vraiment mu neex leen mais nit day jogee fu ne parfois ma tëdd ñu diwoo ma dama sama papa dafa gaañu wala sama yaay dafa gaañu man ne la foo dëkk bi ne ma diw moo ñu boole naa amul problème bu ma xoolee temps bi mu may na ma ko su jàmpee ma defal ko. on dit souvent également que en xam day jaay ay cercueil déjà prêt euh, c'est-à-dire que foofu da ngay dem rek jënd euh, dugal sa néew donc euh, parce que yéen des fois mën nañ leen jox rendez-vous alors que vous respectez le rendez non du loolu parce que là dafay jàpp trop ñoom bu ñu soxlee dëgg dëgg dëgg am cercueil blanc comme ça ñoom ñi liggéey art funéraire dañ may seet si dañ may woo Félix boole naa diw ñu tudd Pascal wala Mass ñooñu dañ may ne yow boole naa la diw sama nijaay dafa gaañu da cercueil bi laa bëgg man defaral leen ko parce que seen cercueil dafa cher trop a ah. vraiment ça. j'ai euh, bi si gën a moins cher je pense si je ne me trompe pas si je lay jaar jëm kaw. gën a cher bu cinq cent jëm ko six cent jëm ko mais xam naa leen ñoom bu ñu soxla ma produit maa leen doon wan produit bu ñu doon vernier. ñoom tam dañuy defar ar funérailles. ñu defar ñoom ñu ngi am an marinas dañuy defar foofu la seen entreprise nag. ok fële euh, Sénégal euh, ar funérailles fële Dakar bon donc foofu mooy seen bureau quoi. d'accord et euh, Félix yaa ngi koy def métier bi depuis kañ ar funérailles. yàgg naa ca man depuis 84 88 84. 84 Cheikh Sadibou 84 juddoogoo xam naa ne aussi télé ba ñu bari juddooguñu woon ndax man mii di wax ak yéen 84 juddooguma 84 ba léegi yaa ngi def li nga xam ne mooy cercueil. damay def cercueil Massa ñu bëri nee naa la ñu bëri xamuñu moon waaw si ñoo ñoo gënoon xam parce que boobu nekk moon grand maa ngi woon bur gi ba. Mm. donc di jàng métier damay yeewu secteur sama liggéey yeema ma félicité ma liggéey. ndekki ba pare dem liggéey. Euh, bi nga koy commencé da nga commencé defar bu ndaw ndànk-ndànk ah foo ci ba ba léegi nga doon ci naanaan wala. non si bu may jëkk defar circuit dañ ba ne ñu amoon benn décès sam benn jaay bu gaañu ñu dem Arsenal jënd fa circuit bi circuit am euh, na circuit bi des na ñu ne euh, bi ñu ko jëndee trois cent mille à l'époque ñu ñëwee wax leen ko ñu dem waaw. ma am suma benn euh, rakku yaay magu yaay mu gaañu ma def un cercueil ci lañ ma commencé song waaw. 24 jusqu'à maintenant. ça 2000 2001 2003 2004 ci lañ ma gën a commencé. gën a song. ça alors euh, est-ce que des fois di nga toog bëgg a changer li nga xam ne mooy métier wala euh, sa métier bi bëgg nga rester ci sa métier bi. ah man de maa ngi Euh, ça dépend rek su ma gisee loo xam ne daf ma gën a moo gën a dox lii ma bàyyi mais cercueil dafa bëri xaalis. ah tane na sant yàlla. cercueil ah, les prix ah ça varie de de de de fële nga wax ville deux cent mille deux cent un million cinq cent mille jëm kaw. Ah, jëm kaw parfois. de l'argent si ñoom ça dépend rek xam nga nit ki moom moo am euh, poche am léegi boo ñëwee ñoom dañuy tafu ci prix bi dañuy long prix mu tafu ci prix bi bu ñu poussé li ngay xool. soo amee ba sentir goût bi nga jël. d'accord yow ñëwee tey ci yow say prix ça varie de ñaata ak ñaata. man ça dépend mun naa jaay deux cent cinquante mun rek. tàmbalee jëm kaw. mun naa jaay cent cinquante mun naa jaay cent cent. alors ñun nos frères catholiques d'habitude euh, bu ñuy denc seeni néew euh, dañ koy daal di dencaale ak li nga xam ne mooy euh, cercueil bi maanaam kees bi. Euh, ban bois ngeen di utiliser réellement pour parce que quand même bu nekkee da ngay denc nit ki da nga koy denc at bois bu baax. waaw ah, parce que là bois bi nit ki ak poche am la rek luñ la fay rek da nga ko war a liggéey moom la nee def dibutu bu la nee bois rouge la bëgg da nga ko def bois rouge su la nee euh, laquage la bëgg da nga def la laquage. à part Djibouti ban moo gën xam naa ne Djibouti moo gën. soo génnee yëpp cercueil yi may defar yëpp fu la neex nga yóbbu ko macha allah. yàqu ci biir. waaw ah, parce que là mais nit nit da yàqu ci biir mais nag moo defee tonatóor bi yàqu. alors euh, suñu frère catholique yi ñoom bu seen néew génnee àddina duñ ko suul euh, sur le sur le champ comme ñun jullit yi ni ñuy def xam nga ñun moom nit ki mën na génn tey àddina ñu suul ko tey. donc euh, yéen ay cérémonie la messe bi et cetera est-ce que des fois mës na la arrivé benn jour nga daal di retardé c'est-à-dire nit ki war a suul néewam kees bi pare non loolu mosul am day tardé rek mais balaa ñuy wax balaa messe bi dina fekk ma pare loolu bugguma ko sax parce que là loolu day dàq parce que là booy liggéey dara da nga damay fanaan fii ci mbedd mi pour lan lii pour satisfaire nit. am na un jour nit ki soxla cercueil nee ma Félix dama am dëj commandé nañ cercueil mais cercueil mu defar baaxul heure bii la ñëw man ma taxaw ba bër defar ko ko mu dem suul ku nekk ak sa choix ak sa da ngay gis ñoo xam ne dañuy bëgg cercueil bu weex uniquement blanc am ñoo xam ne dañuy bëgg beneen couleur am ñoo xam ne dañuy bëgg en argent am ñoo xam ne dañuy bëgg en or maintenant bu nekkee nit ki def en or yow comment tu vas faire pour euh, euh, lijjanti or boobu wala xaalis boobu comment vous faites Félix. man nee naa leen man mun boobu la boo bëggee en or dam lay wax parce que là boo ñëwee dam lay wax lii laa am lii moo ne ci marché bi soo bëggee loolu tànn ko liggéey soo bëggul tamit nga xool foo xamante ni nga ut en or. yow doo defar or. non dama defar or. yow ban ngay defar. man lépp laa def bu am bois rek lay defar surtout bois rouge lépp sapin lépp. alors euh, euh, am na regard bi ñu leen di xoolee yéen est-ce que des fois doo leen am ay préjugés euh, des fois est-ce que nit ñi duñ leen ragal est-ce que des fois nit ñi duñ leen xoolee benn bët que da ngeen bëgg dangeen ngeen da ngeen mi da ngeen ñeme nit ku gaañu walla genre préjugé yooyu noonu. xam nga nit bu gaañoo il faut que ay mbokkam taxaw ko bon donc ñun ñi nga xam dañuy liggéey ci affaire bi il faut ñu taxaw leen. parce suñ leen taxawul kooku mënul jóg mënul def dara donc fañ jàpp taxawu leen loolu moo solo parce que day triste parce que boo ñu gisee ngeen ne ah ñun mën naa béy métier bi parce que yàlla na ma loolu. c'est un métier triste comme j'ai dit tantôt c'est un métier bi nga xam ne du ànd ak joie parce que da ngay xam ne carrément cette personne là elle est elle est elle est morte cette personne là elle n'est plus dans ce monde. cette personne la elle n'est plus là. Tu vois, c'est un métier triste. Voilà. Est-ce que des fois, euh, di ngay am souvenir yu triste ban souvenir bu métti lan lu douloureux nga nga dundu donc euh, fii nii nga xam ne euh, di nga defar ba si yàgg nga xalaat souvenir boo xam ne da koy bàyyi sa xel. non si am na un jour là maa ngi livré benn mancagne là fan. bañ defaree ba pare ñu woo ma pour ma fermer cercueil bi mais après doomam daw si ut suñu kenn tëj sam pap je boobu oh, sam dama mujj reculer ma taxaw frère ami ak magam ñu jàpp ko après ma dem fermer cercueil mais boobu jour boobu am naa lu ko quoi vraiment kontaanuma parce que là damay xam ne nii dafa métti parce que man jour bu ma xamee ni dafa métti heure suma yaay génne àddina mu dem fekk fu mu tëdd dama jooy ba bërset bon donc ça fait mal. excusez-moi. oui boobu métti na trop ma jooy ba bërset mais man ma ci dara ma xam ni yàgg naa tëj yaay jàmbur yàgg naa tëj doomu jàmbur yàgg naa tëj magu jàmbur bés nañ ma tëj dañ leen tëj sama yaay. ma dellu sama bopp ci yàlla. d'accord euh, est-ce que euh, forcément dañuy tëj nit ki ci hôpital bi wala ci messe bi lañ koy tëj. non parfois lañ koy tëj ci église bi te amee retard wala affaire bëree bu demee hôpital messe war a commencé bu ñu def dañuy euh, exposé bon donc foog ma fekk leen fii parfois ma fekk leen hôpital. doom am nga ab. day nekk moment yu difficile parce que man si si y a pas longtemps mais sama xarit bi ma mujjee assisté muy Jean Paul Dameda xam naa ni sûrement war nga ko xam boo ko xamul sa dégg nga turam Jean Paul euh, JP c'était très très douloureux ñu nekk si église bi yuuxu yi fii jooy yi fii ah nit ñi fii prières yi fii donc at euh, yi ñu utiliser seen chanson yu triste yi loolu c'est des moments très douloureux. waaye parce que loolu day métti parce que nga nekk nit kii sa xarit mu génn àddina brusquement surtout euh, accident dafa loo xam métti boo feebaree sax da nga ne ah ki dafa feebar dafa noppalu donc yenn accident yi dafa métti il faut mu triste il faut nga jooy parfois nga gis di triste ay jooy mais dañ ko mujj ndax te calme ko nga xam ni loolu la ñun fii dañ fi gànna si rek ñëppay dem. c'est vrai je pensais que famille bi ñoo doon ñoo faral di tëj li ne mooy euh, des fois ki nga xam ne. ki ko defar moo koy tëj autant gars dañ ñëw di daaj di tëj mais léegi dañu ñëw ñu ñooy visé bu ñu paree def li ñu def ñu tëj ko ñu visé dellu delluwaat suñu liggéey continuer liggéey. tëj bi nu muy demee da ngeen koy visé. dañ koy visé parce que. dëgër dëgër dañ koy teg visé ko ak viseuse bi noonu la encore. diis nit kaa ngi ci biir après yéen ngeen tëj ko c'est pas facile ah. c'est pas facile moom. cher métier bu métti la métier boo xam ne c'est pas du tout facile euh, man tey j'ai de problème pour def sama interview comme il faut parce que c'est très triste nga tiim doomu aadama. bu doom dund nga xam ne kii yéen a bokkoon lu ne yéen a doom defandoo lu ne wala kii sa yaay la wala sa papa la wala yéen a doom def dara nga tiim ko tëj ko quand même vissé ko nga xam ne kii dootul génnati c'est c'est triste. ba maintenant nee naa la dañuy muñ rek dañuy muñ rek yàlla neexul kenn vraiment. jéeg di tëj jéeg saay seen rongo ñi. ah day ñu ñib si après dañuy jooy parce que là ñoom bu ñuy jooy xale yi bu ñuy jooy. nga jaay foofu kenn du ko tëj foog nga muñ nga ferme pare boo ñib see da xam ne nii métti na trop. métti na ah bon maa ngi doog bon góorgóorlu dund naa góorgóorlu bu ne mais góorgóorlu bi c'est très émouvant góorgóorlu bi c'est très triste. c'est c'est un métier vraiment très triste ñu xaw a génn tuuti ci tristesse bi ñëwaat encore c'est toujours les morts ci période du Covid bi y avait beaucoup de morts da ngay gis ñuy ñuy compter ay nombre de décès par jour c'était infernal c'était triste c'était ah. beaucoup c'était énorme est-ce que yow période du Covid bi noonu yaa ngi si doon génn ak décès yu bëri. waaye maa ngi génn période Covid bi man vraiment am na un jour jour moo gën a frappé. Euh, Euh, liggéey naa fi si cercueil bi génn ci Covid bi mais ça fait mal moo dese ay cercueil yoo xamante ni ci biir dese ma quatre cercueil ci biir mais man fii laa wéeru ku ñëw ambulance yëpp ku rabia yëpp dugg si ku ñëw mën la jëlal bi jëlal bi mais vraiment neexul fële laa fermé laa mujjee fermé cercueil Saint-Lazare. waaye parce que mënu moon dem ci hôpital yi nga vraiment. Saint-Lazare laa dem xaar la ñu ñëw ku ci ne ma tëgg la cercueil ma doog a ñib si mu ñib si tëdd cinq minutes en général. des di nga am benn dëj si benn jour bi plusieurs dëj si. genre euh, je voulais ce que des fois da nga doon am ay plusieurs dëj ci benn jour. si fu mu ni nii parfois samedi passé am na quatre quatre cercueils yu mu livré am na bu doon dem Guinée-Bissau ña trois yi dem nañu Saint-Lazare mais la bu ma ñëwee am suma xarit bu jógee foofu mu ne ma Félix daal yaa battre record Saint-Lazare ma ne non bul wax loolu lu kenn du ko wax. waaw vraiment métti na. alors est-ce que mës nga am problème at euh, sa benn client bi nga xam ne daf la commandé ne le jour tel bëgg naa mu pare jour tel boobu ñëpp loolu ça arrive à tout le monde. non man bu ñëwee rek day tardé rek mais jour boo ñëwee di nga fekk seen ba pare waaw dina tardé peut ay dix heures onze heures dina fekk ma pare mais mu nit mosu taxaw wala dama lay liggéeyal cercueil cercueil bi parewul gàncax. loolu mosul am benn yoon laa ma arrivé nee naa la boobu mu ngi taw taw bu metti sax ba ma maa garé benn ambulance fi Correa fi noonu ci biir laa nekk doon liggéey te ba ñuy ma délivré yi loolu ba pare dama mujj enchaîné eggali ko balaa ñu ne heure bi fekk na pare na waaw. Alors nous venons du ciel et nous y retournons comme on a l'habitude de dire bakken bu ñam dund dina ñam dee. Euh, voilà yàlla na yéex te euh, saa yi ñuy fekk yàlla nañu fekk ci lu baax Cheikh Sadibou comme góorgóorlu nuñ koy defee saa su ne nee naa leen tey góorgóorlu bi dafa xaw a métti si man. parce que euh, du ñàkk ne am nga ay mbokk yoo xam ne génn nañ àddina du ñàkk ne am na ay xarit yoo xam ne bàyyeeku nañu si àddina bi également du ñàkk ne al xam ñu daal di génn àddina. famille euh, euh, d'Almeda, euh, donc Jean-Paul, Jean-Paul d'Almeda, JP. J'ai pensé directement à toi parce que ce, ce funérail, c'était pas facile du tout. Voilà. Et j'ai pensé à, à, à, beaucoup de gens qui ont été génn nañ àddina nee naa leen góorgóorlu nii lay demee fu nekk dañ fay dem dañuy bàyyi li nga xam ne mooy waxtaan bi dem ci liggéey bi Félix comme ça bu ko defee ma jàppale la tuuti. amul benn problème loolu loolu neex Cheikh Sadibou bu baaxee rek dañuy daal di accompagner ñu daal di eh, ñëw ci liggéey nee naa leen métier yëpp la ñu war a respecté euh, Félix Thiam Moussa mais métier bi daf ci daal di war a raw ndax métier bu noble la euh, l'art des funérailles comme tu m'as bien dit Félix c'est un plaisir ma ñëw seet si la tey Grand Yoff ñëw fekk la si sa métier bu noble bi nga xam ne de dire on doit respecter les morts on doit chanter des louanges pour les morts mais nag euh, ginnaaw bu ma ñëwee yow yaa représenté les morts parce que yaay defar kees yi on doit te respecter on doit chanter tes louanges également donc jaajëfal bu baax a baax nga bàyyi la rek euh, nga dernier mot euh, voilà wax peut-être am na lu waroon wax am nañoo war a remercier lépp lépp lu rek dañ lay bàyyi. Ah, maa ngi remercier am employé may jàppale may liggéey. vraiment day métti ci ñoom trop mais vraiment ak waa Sen TV maa ngi remercier bu baax waay jërëjëf yàlla. voilà di la remercier di la wax ne euh, di la jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah. amul benn problème. bon courage et euh, pour euh, le reste c'est pas facile mais sant yàlla euh, donc je vous dis chers téléspectateurs naa leen tey moom sama góorgóorlu bi bokk na ci góorgóorlu yu gën a métti parce que kii naa mosoo leen ko gis mu triste foo leen ko fekk moo ngi kaf at ki mu fekk si moo ngi reetaan moo ngi waxtaan ak moom mais tey dafa ànd c'est émouvant en fait émission bi c'est vraiment très émouvant euh, très triste parce qu'on parle des morts ku nekk sa kër xëj na am na kenn ku musa dee ku nekk sa kër am na kenn koo xam ne aussi euh, wala sa xarit wala euh, sa am di jàmm wala sa dëkkandoo bi nga xam ne génn na àddina di leen jaale yéen ñëpp mais aussi di leen wax ne les morts son toujours parmi nous donc voilà les morts resteront toujours parmi nous également di leen ñaanal rek loolu la ñu soxla kon góorgóorlu tey comme ni ma ko waxee si njëlbeen ba Grand Yoff la ñu daal di ñëw seet Félix Mendy bi nga xam ne moom il fait l'art des funérailles euh, donc euh, di defar ay keesu néew euh, c'est un métier très très très noble c'est un métier à saluer c'est un métier à respecter xanaa rek di jaaj jaajëfal également Cheikh Sadibou lu ma jooy benn rek jooy ko fukk ci ginnaaw caméra yi la nekk di fomp rongañ <laughs> yambar la moom <laughs> ah, fii la nekk di jooy ah, donc xam naa ne góor également buy monter dina jooy bay bëgg a dee donc c'est plus fort que nous enfin émotion bi buy génn doo ko tey ku ma xam-xam na ne je déteste pleurer en Euh, mais tayuma ko di leen jaajëfal di leen jox dig daje euh, incha allah ba beneen émission góorgóorlu sur ce prenez soin de vous et bonne à vous.